1960 ba léegi ñu ko doon xaar ma leen di soññaat ñu gën a taxaw gën a takk suñu digg